leen ziar di amati mbégte ak contentement di jàkkaaru yéen sur la 24 TV la télé des grands événements ci émission bi nga xam di tabar fakal la macha allah tey ndek ñu wàccaat sur le terrain fi ngeen di gis marché central ñu ngi ci diwaanu maquette bi ah des amateurs ñoo fi nekk ak ñi nga xam tabar fakal la ñooy jaay mbëri ay sungu fakki ren waaye ñi nga xam ne ñooy ëwal tamit ñu ngi fii ak sunuy peer yoo xam ni ci làmb lañ leen fekk yokku nañ lu bare bare bare bare bare ci day doon wareef ak tolluwaayu nek tabaarfakal la chaque jour ñuy dox ci li nga leen di bégal chaque jour ñuy dox ci li nga la lutte sénégalaise rawatina euh, bi nga mu ngi ci tout juste rek ñu ngi euh, dernière journée bi nga xamni Sidi na tamit muy muy préparer le 14 juillet nga di ci euh, combat bu nar am ci combat yu neex dinañ ci laaj ak tontu jëmale ko ci lamb ji nga xam ni amoon na fi muy kan entre euh, Ama Baldé ak ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux ñu wàcc ci Zos ak ki nga xam ne moo di Luis Ndiago ñu ñëw ci Ada ak sanction bi nga xam ne teg nañ ko ci kawam teg euh, teg nañ ko benn sanction boo xam ni c'est un an yoo xam ne du ko bëre lan moo ko yóbbee 45 minutes de retard yi nga xam ne Ada Fass am na ko gis nga nit bala ñu laa jàppale yaay jàppale sa bopp comme ni ñu ko waxee ci reportage yu euh, ci canal bi. Ada fas mënu ñu permettre mbeur mu toll ni yow di juggé fi muy juggé han ah, indi conteneuru galaj Ada fas yow yow heure bi waron na la fek nga paré bu yag mais 45 minutes de retard président CNG euh, waccu di wax ak yow danaka sa membre staff bi bay Ndiaye ñi xamni ñu organiser combat bi Aziz Ndiaye yom ñep wacc di wax ak yow tawul nga tok fi nga tok mais buñ la tégué dan c'est normal buñ la tégué dan waref la man sax dan bobu man jappon na ni bi gënon bi gënon xam nga moy ban tey dañoo war di disqualifier mbër mi même si bu teewee ñu woote deux ou trois reprises ci géew bi mbër mi ñëwul dañ ko war a disqualifier mais CNG bon bëgg lu rafet bëgg combat bi jàll moo tax ñu bàyyi woon mais jàpp naa ne loolu war naa mën a am ci réglement bi comme football ni ñu ko ci defee ñu defee ko ci làmb ji c'est ça Arafas sa encadrement nañ wax ak yow xale nga te am nga cër ci làmb ji. am ciir ci lamb ji nek moy fi nga yegg ni budé ada ada dong mënu fa yóbbu bopam mais lan mo la fa yóbbu say supporter fugu bi nga xamni yang koy indi té yakaru fas nga yakaru Grand Dakar nga yakaru Medina nga ah dañ wax tamit ci ki nga xamni modi di Modou Anta Gueye le tigre de Thiès depuis mok aline sey ba légui gisunu ko déggunu ko lay goté bi mu jugee ci lay Pythagore gisunu ko déggunu ko té yeen da nga wara bok ci ñi nga xamni ñoy lamb Thiès du waref ta du yoon foog ñuy wacc di ñew sur le terrain ñu di leen gis seen plan yi bu ñu amee lamb ngeen ñew jappalé leen c'est pas normal waye ma xol suñ papa aladji yusuf mom mi nga xamni nekk lu nekk tabar fa kàlla macha allah ñu ci ah macha allah bu ñu fi ñu dugg fii ba génn ta du ñu waxtaan ak mom ci lamb du ñu waxtaan ak mom ci gis-gis yi nga xamni ni lamb ji mu ngi koy déroulé kéro ku wax deug ba wax deug xamni alburakh events la mu indi stade c'est extraordinaire dinañ ci ñew ci grand combat yi ak yeneen ak yeneen rachid ma maye te tem bakulay ubbe alaji papa gan papa kan di bay ki nga xamni moy reug reug machallah ñu ubbe bak nak lamb bak la bu ko defé ñu dem yi suñu papa papa kan ñewat ci reportage bi ay ci rachid dem mbay ñu ñew ci ñu ñew ci papa kan domi modou kan papa kan chaaroy Papa kan noo tudd yow yaa di Babacar Babacar oo ana Assane Thiam xoolal sama Musa Diop kan kan may sàkk ca njaay defal dem ba jigéen pënde yaay ngandooy jëy yaay lambay lambay nëb siñaay siñaay mi ñàkkul gaal kooku moo fóoti woon xàjjeeb jimbi jëndeb jaam soxna maram Fall maa ngi jooy jàlla landang ma daanoo ñob guddi guddi mu nga war gaalum ñilaan gi mool yanka joow mu nga téere yoo fi géej mbénga mbénga yoo samba samba ngorub geen te kenn ñanga mbaaw geen ñanga wakaam ñanga ñanga caaroy géej tere ko ci njajja fanaan ko ci ween mbulaan ko cim réew bu ma daanoo mu tas ki ñaan du ko faj def na ko sama doole mooy sama xarit su jaxee balam ko sama xel dal na na ngay maam xoolal Birahim Ndiayo noo bokki maam yàlla tubaabu jooro yaay sunu président yàlla na ngay maam ci bak gis nga mbëru démb yi ñu daan bàkku mais léegi gisatuma mbër yi tak seur wacc sur le terrain di bak safi sama waji ji nako def ndeysaan ay way way safi way war nañ ko jox Tafa Gueye numéro 2 nek mu parce que Tafa Gueye mu ngi jéxal xalé yi xalé yépp Tafa Gueye terrassé na leen i saafi jël ñu Tafa nga freiné ñu ko ah ngi noonu waaye nag bu duggee ci marché bi ma ngi dajé grand champion ki nga xamni bi mu ñëwee Thiès ba léegi marqué na fi ay empreinte am ki nga xam ni bi mu ñëwee Thiès ba léegi wane na ni fa mu nekkoon toogu fa rek nga xam ni bi mu ñëwee Thiès ba léegi tabaar fa kàlla allah na leen ni waa Thiès du ko bàyyee génn ngi noonu kooku nag buñ ko Hercule ci écrit écrit euh, Samba Diaw ah di leen nuyu di leen ziar di nuyu mon ami moom frère nga Boy Jaxaaw ak caatu Samba Diaw ak ñëpp ñi nga ñoo ngi ci biir équipe bi ñu ngi leen di siyaare mais champion Hercule ma ngi lay nuyu di la ziar. ñu lay bëggee grand bi di la ziar bu baax baax nuyu ci caméraman di nuyu ñëpp di nuyu wa marché bi di ziar ñëpp di nuyu waa écrit Samba Diaw bu baax baax nuyu wa Ngent do wa Ngent yi Hercule borom double national bi di wa Jurbel di nuyu wa Dakar bu baax baax baax baax ñu leen ziar bu baax. double wala triple nationalité nak nak Jurbel Thiès wala yaan nga ba Dakar wala. Dakar wa ak Gambie triple nationalité rek wa ak Gambie ak Gambie moo tax gars yi leen mën naa def tribune nationalité rek. Mhm. waaw borom tribune nationalité bi rek mooy wax ak ah. gars yi di bëggee ñëpp waaw di safoo ñëpp. ñu noonu nga jóge ci sa euh, combat yaa jibi weñ gi ñu gis ni da nga ko bëggoon a humilier daanaka dóor jibi ba mu wàcc parce que da nga bëree ak ki nga xam ni moo di Babylone bu euh, bu kër mam euh, bu kër Cheikh nga dóor ko mu wàcc ñu gis Hercule mu ñëwaat indi méthode. indi combat yi nga xam ni moom la bëre woon ak ki nga xam ni moo di euh, Babylone bëgg ko imposer jibi weñ gi da ko bëggoon a dóor ba gaa yi ñëw ay mbokkam nangu ko say loxo wala nu mu fa demee. waaw gannaaw loolu ba gannaaw loolu rek dañ seet yàlla di ko bu baax di wax nag yàlla ko ndam li jëkk waaw ndax lamb la quoi da nga ñew be combat ñew dan bi dañoo wara ñew pour confirmer rek mais nak yalla euh, moy dogal dal mais li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñew nañ def li ñu waroon def yëpp mais nak yalla moo ñu xañ dañuy nangu ndax combat bi da nga ñew mu yomb trop bi mu ñew mu jafé trop yàlla xañ ñu dañuy sant yalla baax baax xam na ne yalla loolu dogal quoi mais lu lu war am la dal lu war am la mais ku xam sama xol bi xam ko rek lamb ni mu moy sama lamb la woon mais nak tam bisu bisu bisu defet du bisu am quoi yow lo japp ni mo la combat bi wa non dama ñew top xex bi rek dama ñew bu ko humilier te lamb tam lolu amul waaw lamb tam bëgg a dóor nit ki ba dee yàlla tam du seetaan loolu quoi wax dëgg man ba ma toogaatee ba lamb laa xam ne li ma def tëgu moo fenn samay tam ne ma li def tëgu ko ma xam ne mu ko bëggoon humilier te loolu du lamb quoi loolu moo ma xañ dama ko bëggoon humilier mu ko bëggoon dóor mu tëddal boom dama ko wax de barke alxuraan kan mu ko bëggoon dóor mu tëddal boom billaahi wallaahi taala na dama bëggoon ñëw confirmer lamb jëg confirmation la woon mais a baax a après lolu yaa ngi say entraînement ñu ngi lay proposer ay combat yo xam war nga ci mëna a ndax mom baykat du bay euh, du gëj tol non man pare naa man li lay wara ma ngi si gis Samba jaw xalé la damay liggéey dama wara a wan sama bopp lamb kess dañ ma war xam waaw té dama bëray combat bëray combat ci àll bi kon ma ñëw kess nak day nekk fi liggéey yàlla sutura ma ñu ngi may xam bar nang nang kon dama wara ñëw bëre lu reuy xex mo tax fi leni bu avance bu ma jox pare pour bëre suba suba bu ñu waxoon avance pare naa wër ay ca champion kon mu ngi noonu xamna mo balanga ñokali ba ci biir. waaw ñoo far moy lool Rachid ñu xool Alaaji Yuusu wala ñu maye combat Hercule ak ki nga xam ni mooy Jibi Weñ gi ñu dugal ko.

babylon Babylone féete ñu suñu ndeyjoor attention Babylone babylon sanina way nak Hercule attention babylon Hercule babylon Hercule xex attention babylon Hercule mbok fi fii ci Botoram Ndioma Koddu attention Hercule babylon xex ñi ngi xex ñi ngi xex Hercule babylon ñi ngi xex mbok yi Hercule Babylone droitier lañu. ñaari droitier lañu. ah loolu nga gis. déedéet gauche droite lañu. kan moo fausse garde la ak garde normale ki nga xam ne mooy Babylone moo teg tànk càmmooñ. waaw ki nga xam ne mooy Hercule tamit tànk gauche la teg. waaw ñaari càmmooñ la. ñaari càmmooñ la. bu xeexee daa war a neex. bu ñu bu ñu xeexee rek bëree feeñ. bu ñu xeexee bëree bëree fu mu yàggee. ci fausse garde ak garde. Ah. mooy pied gauche ak waaw foofu damye la. damye ñii ku ci nekk bi ngay wut jox nga ko sa morom. bi ngay jox ko sa waaw ci patron Ndioma Codou Hercule Hercule Babylone Hercule daa yàggalewul action bi Hercule dafa yàggalewul action bi Hercule dafa yàggalewul action waaye mbër boo ko dóoree ba mu dem da ngay téye sa bët da ngay def bi Hercule Babylone arbitre arbitre la ma doon wax ci Hercule ak ku ne am nga loo woon waxoon naa la bu ñu xeexee mu neex waaw wax na waaw moom laa la mooy ñaari tànk càmmoñ yi jërëjëf waaye bu may bu may Hercule damay taxaw Hercule Babylone Hercule door na ko mu door na ko waxoon naa la ko Hercule waxoon naa la ko door na Babylone mu daanu nee woon naa la kilo doole li baru xam-xam a Père Lamine Ndiaye. ne woon naa la kilo doole li baru xam-xam. mais ko ni Samba Diaw daan na Babilone. waxoon naa la ko ne la kilo doole li baru xam-xam ak. musuma gis lii. waaw waxoon naa la ko. ma ne laa mag ñi ñaar ñu nga ne ma. Euh, Babilone indi na forme. ma ne la waaye am na ñoo xam ne dañuy travailler li nga xam ne mooy muscle mais duñu contact duñu physique. mais bind boobu la ko gisee te daa mel ni Hercule daa indi physique li nga xam ne mooy contact. ah attention Thiès nañ bàyyi xel Thiès nañ bàyyi xel doomu njaareem bi. bi mooy premier combat ci esam mu ñew daal dóor mu daanu waaye digënté ñaarëm amna fa fukki combat fukki victoire nañ ci bàyyi xel kon bu ñëwee Thiès daal di jàpp ki nga xam ne mooy daal di koy daan man lay duggat ci ci es attention attention fu mu jëm xamul fu mu jëm xamagul ah, fu mu jëm xamagul far amateur doxal nañ amateur wax na eja jóge nañ ci ki nga xam ni moo di Hercule ak euh, Babylone wala jibi weñ gi sans dépend daal bu ngeen ci seetaan rek mu ngi noonu ñu <laughs> toog ak sunu père nga xam ni tey bu ñu bu ñu bu ñu ñemee géew c'est grâce à lui gannaaw sunu nijaay alaaji Bekay Mbay jëri ngoone Malobe Samba di la nuyu di la ziar Modou Mbay liggéey bi rafet na mu ngi mu ngi baax bay bàlla mbub ah ñëpp ñu ngi fii ci marché central fekk fi sunu père alaaji Yuusu alaaji Yuusu làmbaloog waaye ñu gis ci ci liggéey bi mucc ay bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci làmbi Thiès macha allah mu doon lu am solo tey Youssou ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay di la bëggee di la ñaana jàmm di ko nuyu waa régie bi yëpp di seen DGNG di leen ñaanal jàmm tawfeex ak xéewal rek waaw. macha allah tey ñu ñëw di waxtaanee làmb Sénégal waaye xawatina làmbi Thiès mais lu njëkk ci làmb ji nga xam ni euh, Albourakh Events amal na ko ci weekend bi ñu génn mu amoon ci diggante. Ama Balde ak ki nga xam ni moo di Gris Bordeaux ñu wàcc ci adafas ak ki nga xam ni moo di Gouye Gui ñëw ci combat Zos ak ki nga xam ni moo di euh, moo di Luis njaago waaye keroog ni nga gisee làmb ji ci euh, ci taaruwaay. waaw mais noonu la làmb yàgg naa amee noonu parce que boo xoolee ñi ñu boole ñëpp ay borom yi mbooloo lan borom yi ginnaaw lan te xale yi bëgg nañ leen. ay jamono amateur moo amoon supporter amul mais léegi nag supporter moo am amateur yi sax bari nañ lool mee na supporter yi ñoo ëpp mais boo xoolee ñooñu nag ñoom it seen i moo tax ñu leen di tëgg tamit te mënta yomb ndax boo nee Riis Njaago rek euh, teg ci ay George moom xanaa dañ naan ay quelque lay indi ak ñoom Gris Bordeaux yooyu mais ñi nga xamante ne ñooy xale ay Ama Baldé Riis Njaago ñooñu ñooñu dañoo am mbooloo looloo tax làmb ji noonu lay mën a demee daal waaw. loolu lay mën a demee dañuy jóge ci grand combat bi ñëw ci li nga xam ni moo di ci deux derniers combats yi nga xam ni moo mujj keroog état physique bi nga xam ni bëre nga xam nga làmb bu baax état bi nga xam ni moom la gri Bordeaux indi keroog imposé ko Ama ñëpp jàppoon nañ ni Gris jeexal na mais gis nañ ni Gris bi mu ñëwee amaa ëppale wu ko dara. waaw du neex nag mais mbëri mag yi fi mu toll nii dañuy négocier rek mais dara nekkatul ci ñoom. xëy na am na keroog giri keroog giri li amaa tànt lépp te boo dee xool premier kontaan bi ñu am giri mal mënee na ko ba amaa génn ñëw ñu jox ko avertissement. non déggoo li ma dama ne la dañuy négocier lan wax la fi ne giri ba muy toll ci diggab dëggab ak léegi bokkut Georges ba muy toll ci digg ndëndam ak léegi bokkut ñaan ñi rek nga fi mën a wax tey jii njar ndéem te waxoon naa ko nee naa leen euh, saa kees ama seen njar ndéem la Balla Gaye euh, kee. Balla Gaye Tapha Tine jaraleem la mais gis nga yi nga ay Gris Bordeaux kii kii yëpp mooy loolu dañuy négocier rek làmb ji léegi dafa bëri waxtaan waxtaan wi nag moo ko yàq ndax munoo jekki-jekki xaritoog nit ba pare nekk ak moom di ko tagg di kii ay jamono ñaari mbër yi daje rek da nga koy xam ci seen koñ yi di ko xam ci seen amateur di ko xam ci seen supporters yi mais léegi ñaari mbër yi bëre yoo xamante ni bala ñooy bëre sax ñu tuddante doom wala ñuy demalante wala ñu am loo xamante ni kii làmb ci boppam léegi la gars yi di waxtaanee dañ koy waxtaanee mais làmb ji fi am boo xamante ni tax nañu wax ndax Gris Bordeaux war naa mën a bëre ak Ama Balde xamali ma la parce que boo xoolee Gris Bordeaux fekk si na Zil Balde ci géew kon xam moo ko mag foofu kon day négocier làmb rek ñeneen ñi ñeneen ñi noonu ndax boo xoolee Georges tamit waxi nopp waaw Georges làmbam noonu la demee Georges ku ne xam na ni moom pare na ci làmb ji tut xale la nag kiilu mais nag dafa bàyyi ginnaaw làmb ba pare ñëwaat bëgg bëgg a jëlaat paasam mënta ne te xale yi danoo soxor bëri doole te danoo am luñ bëgg ndax ñoom am nañ seeni teranga ta xalé amaguñ seen teranga ku ci jënub xalé tamit dina la wan bopam. mais jos mom est ce que japon ni mom dafa japon ni lamb je namu melon ba legi non la mel parce que mag ñi dañ naan baykat bu gëj tol waaw mais mo dal guuy gi mo dal guuy gi entraîner na bay bëgg dé ki mais tamit xalé ak mag bokku mais ay repère lañ doon ak wala mag ak ndaw bokku mag ak ndaw bokku ñu xalé dañu bari doole xalé bu ci am fula am fayda so taxawé sam sa tak jaaga mag ñi duñ la daan ñoo bañ ca tollé fekk fi mag ñi dañ leen daan daan kon ñom bi ci xalé féké dañ leena wara daan mën na noo daan xalé nak ndax bo xolé ëmma seen ki mu daan war na koo mën sax xawa ju jub tuuti kon bu démé ba daan ko jël bu mel non kon amna lo xamanteni mag da ngay liggéey lo xamanteni sérieux la mënu ni seen do nga ci gis muy liggéey liggéey bo xam sérieux gisoo bomba ja bi fi ñëwee am fi rek rek ak franc lamb yo xamanteni ni kan xamul lu ñuy nduru ah wa nañ bayyi négocier bi bu démé ba xamni jéxal na nan nan bàyyi seen rek rak continuer ñom ñu dem seet seen leneen yalla teranga ji du jeex est-ce que bëgg ñu jaar ci porte bu rafet bi rek. waa porte bu rafet bi mooy nga def li nga xamante ni mooy li ma la wax rek ndab moom kenn du ci sukk moom kenn du ci sukk ba ñuy yëlëb sa loxo ndax boo ci sukkee rek tawuju xale yi yëlëb sa loxo loolu la. boo yi ma gis ne ku ci fekk waaye ñu ñëw ci euh, suspension bi nga xam ni teg nañ ko Ada loolu tey yow bu fekkoon yaa indi Ada Fass loolu ci ban côté nga koy jàngate. waa Ada boo demoon kojam kojam boo fa demoon ne len lu war lu war wa CNG def ko ko waa koñam supporter am ñoo leen njëkk wax ne len aj len ko te soto sama sama fu la doon def bu lay nit di wo waaw lu ma neex le du fofu da ngay wut ci laam CNG wacc ci suuf ñew di wax ak yow waaw daa jar daa jar president sax di wacc bu la maye 20 minutes wala 15 minutes nga dem 30 minutes lolu loolu fu kenn di wacc jaru kenn di wacc sax yow sa bop yow mi mbeur mi yow yaay lijeent sa bop wa yow lay lijeent sa bop parce que tey amna lo xamanteni tay ji ci ñom ci seen ci seen ci seen encourage am na ñoo xam ñoo naa ko taxawal ak demal ba mu ñëw ak bu mu ñëw ak na def mi ak heure bi jotagul ak heure bi la war a bëre yooyu yooyu ay foo la demal nga entraîné am doole ñëw taxaw parce que la mu def ba daan euh, guy gi bu ko teeloon na def da koy daan dem yoonam ndax ñi ma la waxe moo ci ne rek mbër yi ci kaw yi ñu naan yi mag yi ay guy geeki jor sa ki giri bëddoo ñeneen ñeeg dañuy négocier làmb ji rek waaye fi ñu toll nii amatuñu doole ju ñu nekk fii di rey reyante tey nag nekkatuñ tollatuñ foo xamante nii dañuy jël làmb ji jal ci seen lépp waaw dañuy yeggale nii rek mais. mais tamit euh, jàppoon ni CNG. Euh, règlement bi ci côté boobu war nañ ko mën a changer muy lan ñu disqualifier ki nga xam ni moo di mbër mi même si bu euh, bu présent yi mu ne ko trent minutes dañ la may pour nga dugg ci biir géew bi mu romb 30 ba 40 ba 45 minutes ñëwul ñu dem ci diggu géew bi yëkkati loxo zos. jàppa woon ni loolu war naa mën a am. yëkkati loxo guy gi mais loolu tamit ba ba tey dafa am ñaari façon yoo xamante ne da cee am gis nga làmb euh, promoteur bi da cee bokk amateur bi bokk ci supporter bi bokk ci ñeneen ñi bokk ci mais boo defee noonu jékki-jékki dem yëkkati ko tey jii bu ñu xëyee dañ naan waa CNG yàq làmb ji. waaye règlement boobu moo tegu sa kaw. waaw waa règlement boobu moo tegu ci kaw mais tey ji bu ñu ko defoon tey ji ñu ne waa CNG ko yàq xam nga léeg-léeg arbitre yàq làmb. waaw ak CNG ñoo bokk kër waaye bokkuñuy néeg. Mhm. ñu bari danoo xamul. CNG ak arbitre yi ñoo bokk kër mais bokku ñuy néeg kenn ku nekk sa néeg ku nekk sa néeg mais tey jii bu làmb amoon bu arbitre yàqee ñu ne waa CNG ko yàq kon nag am na loo xamante nii règlement bi bu ñu ko ko tegee ah moom mu xam ne moom moo ko teg boppam mais kenn teg ko ko parce que ñoom it fan toog lan toog yore seen kay ak seen bik dix minutes lan la may nga toog une heure de temps nangam arbitre bi suuf la ne la ñëwal bëri nga neex fa di def lu la neex ah kon lu la la fekk rek nga xam ne noonu la tamit xam nga gars yi tamit ñu comprendre tamit ta xamni encourager la rek encourager la rek motax waaw dem defaru ju wat ñewat taxaw un ay du dara balle be ñi ni dañ ko fay acc dañ ko fay acc mu dem état li ñewat bu ñewaté jël place am ta dara sos de xamna ni bimu démé ñewat mom terrasse na mbeuri wayé papa boy jinné fofu la ñu tëjee ak ki nga xamni modi euh di Tafa gay numéro 2 papa limu mu est ce waron nako na Tafa waaw mais Tafa Tafa gay tamit du cuune Tafa Gueye ak seex Niang Cheikh Niang bu kees Tafa yi dama lay wax lu leer naa ñoo gën taxawaay ci mbër yi lu leer laa lay wax ñoo gën taxawaay te heure boo déclenché dañ lay séen. bala ngaa ñëw ñu dama ne ñoo dàq ta ñoo gën taxawaay ci mbër yi mën nga leen a daan nag néew ma dul leen daan mais ñoo dàq gën taxawaay te boo nee bëreet foo jëm dinañ ko xam. Hmm. mais mbër yi ci baari ñu ngi bëre di daan na mu amuñu taxawaay. machallah mu ngi nonu expert en lutte sénégalaise pap bu ko defé lan ngay teje rek. waaw di len sant di len gërëm rek di len wax ni affaire bi ni la rek affaire mom, ken kenn moomu ku ci nek na ngay bay sa war rek waaw di gërëm ñepp rek di sant ñepp rek. ci tax tay ñu dugg fi nga xamni ne moo ci diwanu marché central ci euh, lambaloog bu mag bi tabar fa kàlla ba naw leen a naw ki nga xam ne moo di euh, Alaaji Moustapha Ndiaye ah, papa yusu ak euh, Seck Ndaanaan alaaji Modou Fall bu bax mi cameraman bu wor bi tap Mbeng waye nag ah seigne Modou karangi okay karangi chéri chéri kan nga ni chat rdd RTT rëtëtë caat mu sëriñ Saliou mais frère yow ma ngi lay nuyu di la ziar. wa lay be naa la di le ziar han ah. di bege Rachid di bëggee téléspectateurs yu Sen 24 yëpp di len jaajëfal ci liguey bu am solo bi nga xamni ñing koy liguey di bege ki nga xam ne directeur bi han ah. euh as ensi NJ ah diko ko diko ziar bax bax di bëggee kep ko xamni ne yaa ngi safoo làmb rek tay dañ la fekk ci cumbukaayu kay mbeuri de Rachid xoolal ne fi la affaire yi ne fi la bagage yi li moy bogolan lol ci kaw xoolal moy mooy euh, tisi bu noir blanc bi bobay bogolan xoola ye ye moy ay euh, ay ki ñu toti ay càq. ay waaw ay càq la. càq peme. lamba ji. <laughs> Eh, lu ma xool euh, bee mooy poqe. waaw poqe ngi na le. poqe ngi na le ci biir. waaw lar laar. reen waaw ah, fii am na. am na xay. am na waaw yooyu yëpp mbëri dañ koy soxla am na xay gis naa fi ay fuuf reeni fuuf. waaw bari na ay reen yu fi nekk de waaw. bari na ay reen nekk de yoo xam dañoo gasi reen bay bëgg a dee. Mhm. ci làmb. tey bëgg naa ñu développer ko ci parce que ñëpp xam nañ la ci milieu làmb te yaa ngi ci liggéey liggéey bu mucc ayib liggéey bu extraordinaire mais tamit ci côté euh, sa relation ak Père Sidi ah Mamadou Seck ak ñi nga xam ni euh, yore nañ fi ay teel yu nekk ci diwaanu Thiès. Euh, xale yi sax dem nañ ba xam Mamadou Kara ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni yaa ngi koy liggéey jëmale ko sur la lutte sénégalaise ñu gis ni weekend bi ñu génn. amoon na lamb joo xam ni lamb ju extraordinaire extraordinaire la woon euh, Alburax Evans euh, tëgg ko grand combat bi nekkoon ci ki nga xam ne moo di amaa Balde ak Gris Bordeaux waaye tamit Sidi Jaxate production sama waajaar mhm. suñu papa ji ngi koy nuyu di ko ziar moom tamit mu woote le 14 mhm. le 14 la woote fële nga xam ne moo di ci diwaanu Mboro mhm. ah Daaru Xuddoos Mboro waaw Daaru Xuddoos Mboro stade municipal bi stade municipal bi ah caatu euh, Ama war faa bëre ki nga xam ne moo di jigimaar la te ku ci nekk xam nga ko ku ci nekk xam nga la muy bëree ku ci nekk xam nga fa mu jógee tey ñu taxaw ci grand combat boobu rek waxtaan ci mhm. aco muy lu am solo laay say di la jaajëfal yow itam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci promotion lamb ji di nuyu suñu père Sidi Diakhaté bu baax a baax di ko nuyu di nuyu père bu baax a baax ah di nuyu Omar Diakhaté Pam Mbeng Alaaji Moustapha képp koo xam ne yaa ngi ci staff Sidi Diakhaté production di la jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi waaye yow itam laa yaakaar naa suñu tuddee staff Sidi Diakhaté production rek ah yow sa directeur yéen yéenay numéro parce que gis nañ heure bu ñu amee combat liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy liggéey muy plateau yi muy comme répertoire yi kii yi ngay def ni reportage yi ngay def nii ah muy reportage yu am solo muy bokk na ci loo xam ne day day day day jaay bis bokk na ci li nga xam ni day tax bis am jëmm gis nañ journée bi jàll le 26 bi jàll ah, liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nañ gis nañ plateau yi am solo yi nga xam ne def nga ko ak Sidi Diakhaté ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax hmm. di jaajëfal waa Sen 24 yëpp ak équipe bi ñu àndal yëpp hmm. ñu jëm ci bis bu am solo comme ni nga ko waxee la 14 muy grand combat bu am solo hmm. yaakaar naa Sidi Diakhaté mooy promoteur bi nga xam ne moo ëpp muy décentraliser làmb ci ci yi parce que Sidi Diakhaté foo wax rek tëgg na ko ci Sénégal te yaakaar naa bokk na ci li nga xam ni day tax li nga xam ne mooy lutte sénégalaise gën a jëm kanam gën a développé te loolu dañ koy soxla muy di xool endroit yi nga xam ne gën a sori ci Sénégal ñuy dem di fa tëgg làmb di ko décentraliser comme ni mu koy defee saa su ne ñu ngi ko ci ñaanal bu baax suñu borom defal ko ci réussite totale di lancer waat message appel ak sponsor yi ak sponsor yi ak état ñu jàpp ci bu baax a baax parce que làmm dafa metti mmh. secteur privé la mmh. gars yi seen doole lañuy ñuy demee bu ñu tëgee gagné doo ko xam su ñu tëgee perte doo ko xam kon gars yi ñuy wax ñu gën cee jàpp bu baax a baax xool état mu gën a jàppale li nga xam ne mooy làmb parce que secteur de développement la ñi ciy yëngu ñëpp ay ay ay xale lañ te du question que ni sport bi rek moom moo ciy gagné mm. commerce bi da ciy gagné transport bi da ciy ñu ñi ciy gagné bari na mm-hmm. yaa ngi dégg kon loolu tamit jàpp na gars yi gën cee jàpp bu baax a baax la 14 muy journée bu am solo. Mhm. parce que boo xoolee ñu ngi jëm ci grand combat bu am solo diggante Ziggy Marley bu Fass Boy. Mhm. yaakaar naa bi ñu fay mujj le 19 juillet 2018 la fi njëkk a dugg si. Mhm. ci la gëjoon am de fii nga xam ne mooy Thiès defet digganteem ak ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy Minaasu. ah bu ngee xoox te gi dama gis ni. Hmm. buy ñëw dañ indi foule indi population bi daanaka ñëpp lañuy ñuy topp ci moom te bu ñëwee du indi yaafus du indi ñàkk ful day ñëw bëre bëre bu neex daan dem bi waa c'est normal parce que fi ñu dugg zone làmb la Ziggy fas lay jóge Fass hmm. booy mu yàgg am ay champion yàgg am ndaanaan ah mu yàgg am ñoo xam ne chaque jour dañuy topp làmb dañuy supporter làmb. bo xolé bim fi ñew bim mu fi ñew gis nga Modou Anta la fi jël bëree mom am ci victoire bim fi ñëwaatee mu bëree euh, ki nga xam moy moy moy moy mbissane Mbisaan am victoire bëri fek ciatu Samba jaw bëri fek euh, ku ñe euh, ki fils de landing ay combat yu am solo la fi bëri ah. musique marle li mobilisé parce que bo xolé carrière am ñaari defet la ci am. bo xolé nombre de victoire yi bari na suma jumul waaw suma jumul ay sept victoire wala yooyu mat nako mm-hmm. muy mbër moo xam ne ndaanaan la te day mobiliser comme ni nga koy waxee chaque jour ñu jox ko ki nga xam ne mooy technicien bi caatu ama bu kër Baba Alima ah di rakk ci ki nga xam ne mooy Maga Seck booy Niang kooku yaakaar naa dafa judd rek commencé bëre seen kër. Maguette Seck sama nijaay la. Maga Seck mooy Magu Seck. amoo loolu dafa am solo. boo xoolee Maga Seck boo ñaa gis nga ko moo war a bëre le 15 bi su ma jumul digganteem ak ki nga xam ne mooy Mbagnick mhm. tey jii nii mu doon journée bu am solo ci làmb ko tey kon caatu Ama wol wëlbati ko bu jógee kër baa Baba Diop mhm. ah kër Ndiob ba Tiwaawoon ah zone boobu yëpp dañuy jóg village yooyu yëpp ba ci mbéyti Dakar gi mu dëkk Morolan ñoo ñëpp dañ koy jàppale ba ci Thiès gi sax dafay bari ay supporters kon bis boobu tey ji yaakaar naa ñi ngi ciy xaar lu am solo hmm. lu am solo bi mooy que ñoom ñaar ñëpp li ñuy wax saa journée duñu ay xeexkat ay bërekat lañ hmm. kon ñoom a dajee yaakaar doon combat bu am solo waaye si di yëmu ca dafa indiwaat Henri bu Morolan waaw gis nga jox ko ki nga xam ne mooy sañ-sañ bu bëgg sa waaw bu bëgg sa waajur hmm. kon tamit combat boobu combat bu am solo la mais si di yëmu également dafa jëliwaat Samba Lawbe numéro 2. Mhm. Samba Lawbe numéro 2 ak Boy Serif boobu ñu ngi ci journée noonu. jëm Thierry numéro 2. ak ki nga mooy Dolf. Mhm. boo xoolee Dolf ñoom ñaar kenn ku ne am dafa da ngaa def deux combats deux victoires. Mhm. am benn sans verdict. ñoom ñaar yëpp arène lañ ko amee. waaw kon mu doon combat bu am solo. waaw booy jogo moom itam war na bëri ci journée bi digganteem ak ki nga mooy benn melo bu la école li laa jàmme tamit journée bi ay combat am solo moo nekk ci biir diggante ki nga xam mooy bébé baala bu pambal mhm. ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès bu jogo mhm. tamit di rakk ci sesoo bu jogo mooy mhm. Pël Ndiaye ñoom ñaar yaakaar naa ñoom ñaar rek dayoon na promotion làmb seen signature contrat boo ko xoolee sa xol day sedd guy hmm. ak yeneen combat yu am solo yi nga xam ne daal ñu ngi journée la 14 muy première édition ma ma ah, kan di maire de la commune de Darou Khoudoss Mboro hmm. moom itam ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci taxaw bi nga xam ne mi ngi koy taxaw promoteur bi Sidi Diakhaté production hmm. Aïcha macha allah kon Kara yow kon xam na ma lay bàyyi xool borom sungu fi ak borom reen yi jox ñu ci sungu fi ak reen yi yi ak pétaaw ak béjjëni. ak bé eh, eh, eh, béjjë ak ma ragal. ah <laughs> béjjënu Koobay. waaw ah, fii de moom fii mën nañu lépp fii làmb la ah boo xasee dugg mbaari uude rek. Mhm. yaa ngi génn làmb uude baa ngi nii sungu saa ngi nii yaa ngi dégg poqe yaa ngi nii lépp fi nga koy jëndee di ko awlu. xaaral ma ñëw jënd lu ma diis sunguf jaxase yëpp. njaq yi. cumbukaay yi <laughs> ngi ci reportage bi nga xam ni ñoo leen ko promettroon gis ngeen li nga xam ni jàll na ci gannaaw lépp ñu waxtaan ci làmb la lutte sénégalaise parce que mooy suñu culture te li muy te li muy te li muy génne dafa bari jaaykat ba ci côté transport bi ak leneen ak leneen ak leneen moo tax euh, ñu ñëw ci euh, chargé d'une communication CRG bu Thiès muy sunu papa du Seck di leen euh, féliciter ci drapeau chef de l'État bi nga xam ni génn nañ ci liggéey bi nga xam ni liggéey ngeen ci di di leen encourager parce que loolu muy jëmmal li nga xam ni moo di la lutte thiessoise te gis nañ ni depuis bi ngeen ci nekkee yéen a ngi ciy teg ay jéego yoo xam ni ñu ngi leen ci gën a gën a nawe euh, c'est à saluer li nga xam ni euh, waa CNG bu Thiès ñu ngi koy def waaye tey ñu wax tey ñu tey ñu yéene waxtaane ci li nga xam ni moo di ci ci yenn ponk ci ay règlement intérieur yi nga xam ni mu ngi ci biir CNG parce que tey ji mbër yu bari ñu ngi bëri wala manager yu bari ñu ngi and ak mbeur mais xamuñu seen mbeur bu défé li yan sanction mo mëna téggu ci kawam xamuñu mbeur mi ci bopam sax xamul bu défé ni yeen sanction mo mëna téggu ci kawam gis nañ ño xam dañuy and ak seen entraîneur dem ba ci biir ñu leen entraîneur bi kat ki mënta tok ci 16 bi parce que li ak li li ak li ak li motax mbeur mi paré ñu diko jox benn bouteille bo xamni bouteille bo war ñu ko jox yu yépp dañ koy tënk ci benn waxtu wu gàtt tabarfakal la waxtaan ci ak ñi nga xam ni ñoo di les lutteurs surtout les amateurs parce que léegi gis naa ni sax ay supporters moo am amateurs yi léegi bareetuñu parce que ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi lay fay euh, Ablaye Seye di nuyu bu baax di nuyu téléspectateur u vint 24 TV yëpp en commençant par le PDG NJ euh, ak équipe technique bi nga xam ne ànd nga ko sunu frère Rachid yooyu di la nuyu di nuyu say téléspectateur yi nga xam ne ñoom nga àndal. Euh, ngir ñu fas yéene waxtaan rek ci li nga xam ne mooy actualité lutte. mu ngi noonu ci actualité lutte ci noonu la ñuy commencé dugg ci euh, sanction bi nga xam ni tey CNG teg na ko ci kaw Ada Fass norme yi ak lu tax ak lan moo ko waral ak buñ demee ba toll fenn dootuñu jëlati xaalis mais dañuy indi ay sanction yoo xam ni moom la ñuy dugal parce que dagg nañ ko xaalis teg nañ ko sanction. merci beaucoup xam naa ci. Bête gi ñu bête aussi euh, ñuy wax rek ci en tant que chargé de communication bu ñuy wax ci lamb ci CRG de lutte di nuyu d'abord le président actuel M. monsieur Babacar Diop bi nga xamné mo CRG di nuyu son premier vice-président chargé de lutte avec frappe M. Pierre Mbakhane Gomis di nuyu aussi le troisième vice-président Antoine Sen bi lutte simple ak Hassan Fall le secrétaire permanent ak staff bi nga xamné ñu nekk ci également le président du CDG c'est le comité départemental de lutte monsieur Thierno et son équipe di nuyu la bu responsable des arbitres coordonnateur Abba Dramé et tout l'ensemble des acteurs de la lutte Nous ñu ngi leen di nuyu ci ci ci ci li ñu laaj euh, dañuy rappel sanction à la face, bi ku ne ñu ñoo parce que bu ñu demee ba àgg ci benn niveau bi tey le président du CNG Bira Sène nga xam ne da daan toog ci kaw tribune mm-hmm. euh, su demee ba wàcc ci suuf nga xam ne l'heure est président Meissa Ndiaye première vice-président chargé de lutte avec frappe le promoteur Abdou Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye Alburax wàcc ci biir enceinte bi nga xam ne l'enceinte euh, dañ naan la police de l'enceinte c'est les arbitres mooy géew boobu nga gis saako yi nekk foofu amul kenn ku fay dogal ku dul arbitre ñoo moom foofu ñoom la périmètre bi moom même Bira en tant que président su ñëwee di wax interlocuteur am mooy wax ak les arbitres moo tax bu ñu demee tey ba ñoo ñëpp wàcc ci géew bi ci temps de préparation boo xam ne bii tey jii Ada Fass amoon na ko ndax temps de préparation règlement bi ni mu ko tënkee sa cinq minutes de préparation donc boo xoolee juróomi minutes lañ may mbër mi mu waroon a préparer mais tey jii mbër bi bu demee ba am quarante cinq minutes yoo xam ne tey jii am na ko ci temps de préparation boo xam ne bii loolu ba ñëpp wàcc loolu làmb ji mënoon na mënoon na yàqu loolu nag dañuy rappeler ni li règlement moo ko tënk parce que règlement bi li mu prévoir mooy que ni cinq minutes yi bu jeexee temps de préparation bu jeex minute bu ci tegee dix mille francs la benn minute bu ci tegee dix mille francs am na battement buñ ko mayaat de mën na nekk vingt wala nangam mais minute bu ca tegee ci lañ ko may ci ci dix mille yi su jeexee quinze mille ou vingt mille la maintenant minute bu ci tegee su jeexee trente mille la léegi nag dafa am fuñ ko limité bu fa chrono bi àggee bañ dagg ko minute bu nee trente mille kooku mënatuñoo dagg xaalisam la ca topp mooy mbër mi ci boppam dañ ko war a sanctionné moo tax sanction bii nga xam ne dagg nañ xaalisam gaa mais sanction bi di sanctionné ko un an boo xam ne bii euh, du ko du ko sëgg bëre mën naa lekki avance nag mais du sëgg bëre loolu mën na lor boppam mun na lor ay supporteram mën na lor mbërëm mais pour rappel le rôle ak statut statut yi dafa bari parce que dafa am lu ñuy wax management mooy le quel est le rôle du manager manager mooy ki nga xam ne mooy incarné diggante mbër mi ak CRG diggante mbër mi ak kooku moom moo yor licence mbër mi moom mooy défendre intérêt mbër mi su amee convocation moom lañ koy jox su ñuy jox xaalis moom lañ koy jox kon donc responsabilité bu rëy la donc kooku moo nekk diggante promoteur bi ak mbër bi ndax mbeur mi dina signer contrat ba pare te bu ñew ci lamb ji signature lay ñew wala lamb ja mais du jaar sax CNG licence am buñ ko renouveler mu dem renouveler ko présence physique su paree jox ko manager am du jëli xaalis jëli xaalis so loolu sa risque la parce que gis nga fi manager bu rembourser xaliss su jàmbur parce que jël fi avance mbeur ma daw tukki ñu porter ko plainte wala CNG sanctionner ko acc ko parce que mom mo garde responsabilité légui nak motax ñu le rôle manager dafa nek manager bi mo am droit dem outil mbeur mi combat parce que dañuy gis manager yi dañuy jël rek xaalis signé jël seen dix pour cent wala mbër mi dem uti combat mais manager bi moo am droit signé li nga xam ne moom mooy contrat wala mu dem utali mbër mi contrat pour mbër mi mën a dara mais léegi mbër yi boo dee xool ñu utal seen bopp ay contra woo manager ni ko demal signé loolu rôle manager la maintenant beneen bi ci topp mooy statut entraîneur parce que entraîneur léegi dañ ko réglementé ñu ne entraîneur boo xam ne bi tey defoo formation moo tax ngay ñëw ci galaa yi nit bàyyi ko ba mu toog ñu ñëw yëkkati ko laaj ko kartam mu ñëw ñu def parce que dañoo organiser formation former entraîneur yi forme ay arbitre former ñi nga xam ne ñooy staff secrétaire généraux yi léegi nag entraîneur yooyu ak arbitre yi ñu former képp koo xam ne kii bokkoo ci au niveau de Thiès ak territoire national réglement moo permettre boo ñëwee ci siège bi buñ la laajee carte yoroo ko ñu yëkkati la loolu nag dañ ko réglementé moo tax tey mbëri seen entraîneur yi nañ dem defi formation fu ñu ko dégg Sénégal nañ dem defi ko beneen bu bu ci topp mooy promoteur bi promoteur bi moom day défendre ay intérêt parce que promoteur bi commerçant la day jënd ak jaay ndax yor produit am ñëw jënd jënd ci mbër mi jënd ci mbër mi boole ko dem jaay yi mooy ñuy jaay amateur yi lam leen di jaay nag moo tax léeg-léeg mu mën a gagné léeg-léeg mu mën a perte parce que li muy produit lay jaay Ama Baldé Gris Bordeaux produit la mais boo jëloon yaaw jaal ak gaynde produit la waaye produit yi bokkul donc loolu moom day day day défendre ay intérêt promoteur bi kon donc ay aspect yu yu yu bare bare la CRG maintenant statut mooy mu encadrer accompagner assainir accompagner mooy mu xamal leen règlement bi encadrer leen tegal leen charte yi assainir mooy lépp loo xam ne lii dañ koy tere ku ko def ñu dal sa kaw donc CRG loolu moo nekk rôle mais CRG am rôle am du organiser ay làmb du tëgg ay làmb waaye day fekk kuy tëgg làmb mu encadré la accompagner la waaye nag boo defee loo war def CRG wala CNG moom moo lay sanctionné kon nag dafa bari lu ñu umpale ci làmb ndax règlement généraux yi fi ne kenn jaayu ko ku ñëw ci Babacar Diop soxla réglement généraux wala Assane Fall da nga indi clé hmm, deux cent et quelques pages ñu defal la ko nga dem di ko xool même ñuy reporter làmb te am la leen ci ëmb waxtaanoon nañ ci tout récemment ak président pour ñu leen di invité ci session de formation yi ñuy xam le règlement. Hmm. parce que lool pour donner un exemple y un un un journaliste de la lutte Abou Ndour les arènes Abou Ndour ñoo bokk promotion parce que def na arbitrage def na formation mais lu mu ci mooy mu gën a xam règlement bi mu yor ko def kartam euh, Ibrahima Ndiaye bu Walfadjri Thiès. def na formation bi au SNEPS xam règlement bi kon donc yooyu dafay baax ñu koy yaatal nit ñi da ko xam mais daal CNG wala CN CRG ku wàcc yoon dañ laa war a teg ci yoon te ñi même amateurs yi seetaan làmb sanction bu Ada Fass bii bari boo leen waxoon tey jii avant làmb jee jeex ne leen bu ñu doon sanctionné Ada Fass da ànd ngeen ci wala déet même supporter Ada Fass boo xoolee image bi mu defee mi-temps dañ ko doon yooxu pour wan ne ko maanaam bëriwul taxaway bi yag na ak préparation bi ndax mbeur mu ndaw mbeur mu ndaw warul comporter comme comme ñun parce que tay jii lamb ci keroog ñu bari dañ ko jéppi parce que ñun ñu andon ak ñun bëgg ko amna lu bari lu wañé ko ñun parce que mbeur mu ndaw day pare parce que dañuy wax ni galak bi daan mbër ñu lamb ay mottalikoo la ndax da ngay ñëw sangu parce que bët yi lay xol ni muy wax ci yow ak institut mais lolu dañ ko wara bayyi xel xamné règlement bi dafa nekk pour pour ñëpp waye dal li ñuy mëna organiser moy nañ dem gëssu tey seetaan émission làmb yi mm-hmm. tey seetaan émission làmb yi man bëggoon naa nag euh, à travers votre antenne Sen 24 dinaa la suggérer comme fin saison lañ jëm nga invité kàngam nekk ci làmb mooy mel ni ñoom Assane ak yooyu règlement généraux bi Aboubacar Dramé ñoom ñu defal la benn Thierno Ndiaye ñu defal la benn exposition mm-hmm. ci règlement parce que loolu la ci am solo mooy le président de la commission règlement discipline le président des arbitres le secrétaire permanent Assane Fall bi nga xam ne moom mooy nekk au niveau du CRG ñooñu boo leen amee ci plateau dañu la décortiquer le règlement ak hmm. statut yi nga xam ne mooy manager ba mooy entraîneur ba mooy mbër ma mooy promoteur ba ba ci membre bi bi nga xam ne dafa am nu mu war a comporter woo réglement intérieur bi da ko da ko teg. kon macha allah mu ngi noonu am na solo waaye xam naa fi ñuy tëjee rek mooy euh, sànq maa ngi koy wax muy euh, ñu disqualifier ki xam ni. moo di Ada Fass war naa mën a bokk ci règlement yi parce que mu ngi mel ni tey ji exemple tey football buñ la convoqué heure boo ñëwee ñu woola ci biir génnoo arbitre bi réglement am na droit ñu disqualifier la même si que nit tu présent est-ce que demuñu ba toll foofu làmb ñu war koo mën a def mbër mi buñ ko disqualifier benn ba pare jël ay daan teg ko ci kawam ay sanction teg ko ci kawam est-ce que beneen yoon bu ñëwaatee dina def loolu. Hmm. waaw lool loolu na moom dañ cee war parce que règlement bi. Euh, ci ay fait ci la ñuy changer règlement parce que règlement bi euh, texte la ay nit ñoo ko defar parce que dañuy gis ni benn xew-xew bu am ci làmb ñu sukkandiku ci pour jooyante règlement bi te jàpp naa ni à travers lii dinañ ci jooyante parce que tey jii bu ñu demee tey ba règlement bi butéel yu bari yi ñu daan indi ay ñoom móotloo ak ñongom ñu interdire ko ba mu des benn butéel ngay dugal ci géew mais maintenant léegi butéel yooyu ñu doon indi ci biir géew bi pour permettre mu gaaw léegi la ñuy préférer di ko def see seen ci ndax bu fekkee ne tey jii règlement bi tënk na ni mbër mi su ñëwee ci biir géew bi wala timing bi bu jeexee préparation musique bi jeex ñu may ko battement cinq minutes la war a am ñu may ko battement cinq minutes bu cinq minutes bi jeexee ñu dagg ko xaalisam bu dix minutes ya jeexee ci préparation dañoo war a def coup de sifflet hmm. règlement du ko war a mën a prévoir trois coups de sifflet espacé d'une hmm. su fekkee ne ni mbër bi ñëwul ñu sanctionné ko ñu disqualifié ko motax tax toujours ngay dégg ñu def ni disqualifier ko disqualification nak mëna nek mbeur bu ñew mëna nek mbeur mu ñewul parce que li ñu japp ni mbeur ñew na moy mbeur mu nekk ci biir ga enceinte bi mais mbeur mu nekk ci stade bi nekk ci tribune wala fenen lool dañuy japp ni mbeur mi ñewul motax tax souvent ngi dégg ñu naan diw bu ñewul diw bu ñewul lool aussi sew-sew la yo xamni dafa bax bax ñu ñu léral ko askan wi macha allah kon xamna euh loy tëjee rek waaw sant leen gërëm leen di leen suivre macha allah seen plateau yi ngeen def yépp ma ngi koy xol ci walu lutte Euh, à travers d'autres activités yi nga xam ne moom ngeen def euh, vraiment di wane ni yéen a ngi bay seen waar ci wàllu wi ndax li ñuy def dina permettre euh, ñi war a xam ñëpp mën a am information mën a xam comment ça se passe mën a xam mbir yi naka lay naka lay tëddee macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak sa équipe yëpp di leen jox beneen yoon incha allah ci beneen jotaay rek. macha allah yaakaar naa li nga xam ni monsieur di Seck génne na ko. tamit nit ñi wax nañ ci mëna am repère surtout les lutteurs légui mbër yu ci bari dañu melni man seen xel yi dafa nëx xamuñu sax règlement xam luñu wara def ak luñu warta def ah kon li nga xamni wax nañ ko fi bon c'est à saluer en plus mu doon lu am solo lu am lo loo euh, ak jangat go xamni nit ñi war nañ ko ci mëna jangé mais situation bi euh suggestion bi ñu jox pour euh, jéem a dajale. waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ŋànk règlement yi incha allah dinañ ci bay ba suñu ci euh, suñu wewu tànk macha allah pour dajale leen ñu waxtaan ci li nga xam ne moo di réglement mbër yi war ko mën a xam toujours rek ci géewu làmb macha allah day génn dem tëjee ci biti waaye balaa boobu euh, alaaji mam góor gi njaay xam naa moom laay may sama pap muul seng bàkko ji mam góor gi njaay ndax moom mooy làmb waaye tamit da ciy baax ñu ñëwaat cosaan tuuti ndax léegi xale yi léegi ñëwatuñu bàkku takkatuñu sër te dafa baax ci làmb Njaay bañ ma demee ji booba tuuti la taxam booba mu da a may jool wani leen mu ma ma ne gulmaan président booloo nañuy soow maana jamil gisa jamil xam nga Seydou Jamil Seydou Jamil la maandu moo rafeti melo maa xam Seydou Jamil Jamil maa bëgg Seydou ku am Jamil raw àdduna ak alaaxira Jamil maa am Seydou Jamil Abdoulaye Mansour Sy gis ngeen ni nga xam ne tey moom lañ leen indil muy lambi Sénégal la ñuy wax macha allah dugg nañ ci marché bi dekk euh, askan wi ñu wax seen gis-gis ci làmb ji ah dem ci euh, waa CRG bu Thiès du Seck ñu waxtaan ci làmb ji ak sanction bi nga xam ni teg nañ ko Ada Fass ak euh, li nga xam ni mooy mooy réglement bi nga xam ni CRG mu ngi koy doxal te c'est normal mbeuri war nañu mëna xam règlement bi nga xam ni moom la CNG di joxé mbeuri momla war nañu mëna xam règlement bi nga xam ni la mom la mom la lamb di laaj c'est normal mais mbeur day dem melni man rek dara xamuñu ko ci manager yi xamuñu ko ci dara xamuñu ko ci te c'est pas normal du tout comme sank ni ma ubé won ki nga xam ni di laay goote lambi Thiès dang ci bok da nga bok ci ñi nga xam ñoo wara a téy lamb ciess du yoon depuis bi nga bëré clé ba paré gisatuñ la dem même que ki nga xam ni moo di euh, Mour Anta bu Thiès ba léegi gisatuñ leen waroon ngeen di ñëw di soutenir seen plan yi buñ ñu amee combat ngeen ànd ak ñoom ñu gis leen sax ci terrain bi mais depuis loor gisuñu leen ah macha allah nañ ci bàyyi xel waaye di leen yëgal euh, troisième journée Sidi Diakhaté production macha allah fas yéene euh, quatrième journée Sidi Diakhaté fas yéene am fële nga xam ne moo di ci diwaanu Mboro.

tabaar fa kàlla ak yeneen i combat jamteeri numéro 2 dolf numéro 2 euh, booy jogo war fa bëri ki nga xam ni moo di euh, benn melo mu jugee fa booy mbay war cee bëreek ak ëmma seen bu mbooro ñu jugee fa bébé balla bu Thiès euh, bébé balla bu pambal war cee bëreek saa Thiès bu jogo buñ fa jugee booy jiloor war cee bëreek ki nga xam ni moo di caatu ndeer bu ñu fa jógee euh, ak doole nin deux war cee ki nga xam ni moo di bébé jën numéro deux bu fa jógee guy gi de war cee bëre ki nga xam ni moo di l'an 2000 bu fa jógee mbisaan numéro de war cee bëre ki nga xam ni mooy caabi Sénégal waaw ayca loolu moo nekk li nga xam ni. alaaji Sidi Jaxate mu baax mi fas yéene ko indil fële nga xam ni moo di ci diwaanu Mboro mu nekk euh, première édition drapeau euh, première édition euh, drapeau monsieur Magor kan nekk maire de Darou Khoudoss macha allah mu fas mu nar doon journée bu am cëslaay journée bu neex waaye di jaajëfal sama caméraman mi nga xam moom laa àndal. ci reportage bu extraordinaire bi nga xamni moy mooy assainir mon quartier zone nord ngeen di gis toujours ci télé bi ñu wara mëna amat benen taxaway bo xamni dañ koy taxaw jëmele ko ci suñu quartier yi ah kooku moo Rachid le grand caméraman mom la andal nek sur le terrain machallah waye du fenn fudul la Sen 24 TV c'est la télé des grands événements gis ngeen ni ñu ngi ci rond-point ngeen xoolal Rachid borom jakarta yi lay jël borom taxi waye sac bi xol ci gannaaw Rachid li ma def. Rachid gis nga li ma def ci saak bi. ok partout daal le monde foo ma la ne ci këruk addina da koy seetaan ñu di la jox ay image yu leex yu extraordinaire di la indil li nga xam ni moo di information yi nit ñi wër Rachid ni laay defaat naan ki yàlla nu ma neex jaar fu ma neex jaar ah. di remercier monsieur le PDG sa jaajëfatee c'est la Sen 24 TV waaw jaara noonu yaa ko tey ñokkali ma may leen Gris Bordeaux ak ki nga xam ni moo di Ama Balde combat bu neex giri gaa yooyu jaakaaroon jeexal na waaye dese na ak ñam de Ama yaa ngi ci lancé mu ngi noonu nan laay def sax man ngent laay jaar wala avenue euh, Coumba Ndoffène Diouf bi wala ma continuer wala ñu dem télé ba ñu dem. am bii gis ngeen ñu décentraliser yëf yi wàcc ànd ak ñi nga xam ne moom lañ ci war a àndal ay ca kon Rachid su ma la rombee nga topp ma jëlal ma sama saag bi waaye dina ma neex.